nee na am na ñaar fukki melo yoo xam ne moo safaanoog ñaar fukki yee nga weesu woon ñaar fukki yi moom te di xeeti matadi ak i manki yoo xam ne xel mu sell da koy jombale sunu boroom ne boo déggee yaari safaan mooy yaar yoo xam ne dañoo wuute wuute goo xam ne mënuñoo bokk tase mukk mukk mënuñoo bokk tase mukk amandoo benn yoon ci benn béréb mel ne am ak ñàkk yàlla day wax ne am na mbaa ñu ne amul rek waaye boole am na amut moom mënta nekk lu mel noonu mooy ñaari safaan daa tàmbalee waññi ñaar fukki yi mu tàmbalee ko ci yàlla di lu ñu wax rek waaye amut da nga ne woon loolu la jiitu ci gëm yàlla mooy nga gëm ne yàlla am na bu wër a wër kon nag ñu koy wax rek waaye amut loolu jomb na ba ca toppoon mooy yàlla dalewul fenn kon nag alxudoosu yàlla sosu dale fenn jomb na ci moom li mu tuddi fii nag turul xadam rotu ñàkk mooy nag alfanaaw jeex maanaam lu am ba yàgg wëlbatiku jeex lu am ba yàgg wëlbatiku amatut loolu mooy jeex jomb na ci yàlla lu ñàkk moom nee na yow mën naa xamle lu ñàkk mooy lu amul rek lépp loo xam ne amut donte ñu ko wax waaye ci dëgg-dëgg amul rek loolu mooy alxadam sosu mooy loo xam ne amutoon gannaaw ba mu wëlbatiku am mel ne mbindeef yi amuñu woon daa soob yàlla mu wëlbatiku amal leen nga xam ne ak ñàkk am lañ njëlbéenu woon door a am na ci gannaaw ba loolu moo di ak sosu la mu tuddee tur ul xadam te mu yem ak alfanaaw jeex la wax ne mooy loo xam ne amoon na gannaaw ba mu wëlbatiku ñàkk ba mel ne amutoon loolu nag mooy dal mbindeef mbindeef gannaaw bu ko yàlla amalee day wëlbatiku ñàkk ba mel ne amutoon loolu mooy alfanaaw jomb na ci yàlla danga waxoon ne suñu boroom kat moo sàkk mbindeef yépp yépp waaye ñuró wu caag dara rawante na mu cey yemoon teeg dara mu ne nag saa yoo ne yàlla yemoon ak mbindeef ci jëmm mbaa ci melo mbaa ci jëf rek kon wax nga safaan ba yàlla jomb na ci moom mu yem ak lenn ci mbindeef yi du ci jëmm du ci melo du ci jëf waaye nag yemoon teg yàlla ak dara ci lim sàkk mën nañ koo tënk ci fukk yi nga xam ne moom lay bëgg a leeral fukk yi mu lay bëgg a wax nee na lu ci am rek ci yàlla mu daal di yemoonteeg mu def ndax fukk ndax fukk yi yëpp mbiri mu def rek la bi jëkk ci fukk yi mooy nga ne yàlla nekkul jëmm ju ne léng jëmm ju ne léng ju ne nag faaw du ñàkk bërëb bum nekk su ko defee nag na jëmmam toll ci rëyaay wala ci tuutaay wala ci diggu doomu lu toll noona lay jël ca barab bam nekk alvaraaxu day firi jaww alhawaawu di firi jaww ak aljawu ji nga xamee ne wala fiit noonu lañ koy waxe benn ngoog mooy nga ne yàlla nekkul jëmm ju ne léngu joo xam ne barab ba mu nekk faaw mu jël ca mu tolloog jëmmam ba tey yàlla wuute naag mbindeef ci moom nekkul xarab xarab mooy loo xam ne mënta taxaw jonn moom rek faaw day fekk jëmm mu taq ca moo tax mu ne alxarab mooy safaanub aljirimu aljirimu mooy jëmm ji la léegi alxarab mooy loo xam ne faaw day fekk jëmm rek mu taq ca waaye mënta taxaw moom dong taxaw jonn di ki yëngatu ak dal wala xiif wala mar wala nelaw wala yeewu wala gudd wala gàtt wala dajaloo wala teqalikoo yu baree bari yoo xam ne yàlla rek xam ni ñu toll mu yoo xam ne mënuñoo baru dañuy fekk jëmm rek ñu takk ca yooyu ñoo tudd xarab yàlla nag kon du jëmm ji ne leen du xarab du takk ci jëmm ji ne leen yaara nga yoo xam ne lu ci yàlla defoon rek daal di yemoon teeg mindeef teel bi mooy danay wax ne yàlla kat amut juróom benn wàll yi nga xam ne jëmm ji ne leen ju ne amee na ko mooy kaw ak suuf kanam ak gannaaw ndeyjoor ak càmmooñ jëmm ji ne leen ju ne amee na juróom benn yooyu yàlla nag bu ci amee woon lenn lenn daal di yemoonteeg mindeef kon yàlla amut juróom benn yooyu le mindeef foo ko fekk day am wet goo xam ne ca la féete yàlla nag moom amul genn wet goo xam ne ca la féete kon yàlla wéete naag mindeef ci amul genn wet gum féete soo ko féetalee ci genn wet rek mu daal di yemoonteeg mindeef kon yent ngoog ci fukk yi ngay wàññi juróomeel mooy nga ne yàlla tënkuwul ci jenn jamono mooy yàlla amul jamono tekke ne ba tey yàlla amul barab yàlla moo sàkk jamono moo sàkk barab ba mu sàkkagul jamono barab nag na melan rek la mel ba tey kon juróom benn ñu ni yoo xam ne yàlla wóote na ci ak mbindeef juróom ñaareel mooy nga ne yépp melawoo xam ne rek mbindeef dana ko di melawoo moom yàlla du ko melawoo mbindeef da nga ko di gis ñu amee ci xeeti couleur yi benn ni ki ñuul mbaa weex mbaa leneen da nga di gis mbindeef muy gudd wala muy gàtt wala muy digg doomu ak mboolem xeeti melo yi nga xam mbindeef di ko melawoo rek jomb na ci yàlla su ci yàlla meloon lenn rek daal di yemante mbindeef kon juróom yaara ngoo ko ñetteel mooy da ngay wax ne yàlla kenn du wax ne dafa tuuti ni ki sangaleñ mbaa aw fel mbaa leneen lu tuuti muy juróom-ñett nga ne itam yàlla kenn du wax ne dafa rëy ni ki aw ñay wala rab yi ñuy wax karkadaan mbaa leneen lu rëy kon nag yàlla tuutiwut rëyut bu tuuti woon baa mu rëy rek daal di yam ak mbindeef bii mooy fukkeel ci yi nga xam ne loo ci féetale yàlla rek dal nga ko yemaleeg mbindeef bii nag mooy yàlla di tëral benn àtte am ca bëgg-bëgg bu mu cay dabu wala muy jëf jenn jëf am ca xamanteef bëgg-bëgg bu mu cay dabu déedéet yàlla àtte bi muy tëral mbaa jëf bi muy jëf ci coobareem rek ak kàttanam la tërali àtte ba la jëfe-jëf ji waaye amul benn xemamteef mbaa benn bëgg-bëgg boo xam ne moo tax muy tëral àtte ba mbaa muy jëf-jëf ja al xarab ne buñ ko dee wax ci wàllu yàlla wax ji yàqu lay doon mooy jàngale rek la waaye amul mukk ci wàllu yàlla al xarab mooy jëmm ji jëf ja muy jëf mbaa bu dee koy tëral ab àtte mu am xemmamteef boo xam ne moom la cay dabu moo ko tax a jëf-jëf ja mbaa moo ko tax a tëral àtte boobee yàlla moom amul benn xemmamteef boo xam ne moom lay dabu ci jëf ji muy jëf mbaa àtte ba muy tëral mbindeef nag moom bu fekkee mi ngi ànd ak sagoom li ci ëpp jëf ji muy jëf nekkut lu mu cay dabu bu dee àtte bu mu tëralit noonu nekkut lu mu xemeem ba di ko ca séentu bokk na ci melay jomb ci yàlla ñàkk a doylu ci boppam da nga ne woon yàlla daa doylu ci boppam aajowul kenn mbaa lenn mbaa fenn kon nag yàlla nekk jëmm ju ne lenn daal di aajowoo ku ko sàkk tey toppatoo mbiram ndax boo nee jëmm ji ne léng la rek kon dafa sosu te du mën a ñàkk ku ko sos koo xam ne mooy saytu mbiram ba tey yàlla it du melawu tax jëm muy xaral ba nga weesu woon ndax bu nekkoon xaral
faaw rek mu aajowoo jëmm ju mu taq ndax nee nga woon xarab mooy melo woo xam ne mënta taxaw jonn faaw day am jëmm ju mu taq kon nag bi ne yàlla doyal na ci boppam mooy rek nekkul jëmm ju ne léegi nekkul xarab yaar yaar yooyu foo leen fekk rek mbindeef lañu te jëm ji ne léegi faaw mu aajowoo jëm ci ka ko sos amal ko xarab it faaw mu aajowoo jëm ja muy taq nee na yàlla ñàkk wéet ci jëmmam mbaa ci meloom jomb na loolu nag ñaari anam la moom lay bëgg wax loolu mooy benn bi ñàkk wéet gi mën naa feeñe ci melo yi nga xam ne moo di ay meloom limu kàttan bañ a nekk genn kàttan di ay kàttan nit ki ñaar mbaa lu ko ëpp xam-xamam bañ a nekk benn xam-xam xanaa ñu toggale ko boole ñaari xam-xam wala ñaari coobare mu wéy ji des nag mooy ba tey boo ne jëmm yàlla ji am na jenn jëmm jum muróonteel rawantale nga naa am na jenn jëmm jum yemoonteel rek su boobaa kon dàq nga wóotul yàlla ga ci jëmmam te kon dal nga ko yemaleeg mbindeef kon ñàkk wóotul yàlla mën naa feeñ ci ñaari anam jëmmam ji am yeneen jëmm jum yemoonteel mbaa ju ko nuru muy benn ñaareel bi mooy melo yu melowoo melo wu ci ne daña doon benn xanaa di yaar ñu boole ko jox ko mbaa yet mbaa yent ñu boole ko jox ko ba nopp tudde ko nag aw melo ki tudde ko xam-xam mbaa tudde ko kàttan mbaa tudde ko coobare dañu ne sunu boroom dafa wéet ci jëf moom lay leeral ne jomb na am leneen lu bokkut ak yàlla lu mën a def jenn jeexit lu mu tuuti tuuti lu jëf tuuti tuuti ak lu mu réeré fi sa bët ñëwee moo lépp rek yàlla amul kenn koo xam ne mën naa jeexital ci dara lu may yàlla mbindeef mënta def dara mënta soppandiku ci dara mbindeef mënta sax soppandiku ci jëmmi boppam ji rawante na leneen ci gàttal sax ne mën nga ne lu bokkutoo yàlla rek jëfi yàlla lu bokkutu yàlla jëfi yàlla rek mu daldi gàtt da nga ne woon yàlla dafa amee qudratun kàttan maanaam man lépp lépp tëliwul dara dara kon nag yàlla tële ci loo xam ne mën naa am loolu jomb na lu mën a am lu ne rek yàlla mën na ko bu ñu nee yàlla lott ci dara jomb na ci moom dañ cee jublu rek lott ci lu mën a am te moom mënu ko loolu mooy ak lott waaye loo xam daa jomb mënta am moom tëli koo def du lott ndax seetlu ne lu jomb mooy lu mënta am loolu nag boo nee yàlla mën na ko kon la nga waxal ne daa jomb nekkatul lu jomb soppiku na lu mën a am kon tëli lu jomb du tëli tëli kay mooy loo xam ne mën naa am jombut mu ñàkk koo mën nag loolu moo di ak tële ba tey da nga ne woon yàlla amee na iraadatu coobare maanaam lépp lu muy def ci coobareem la koy defee du amit lu ko rëcc mbaa lu tombe rek am lu am rek ci coobareem la mu ne kon nag dara am loo xam ne yàlla naru ko woon du coobareem loolu jomb na lu am lu ne rek ci coobaram la tudd na ci way yi yent yoo xam ne jomb na ci ni yàlla amale jëfam ndax lu ci amoon ci yent yi rek coobar bi nga waxoon dal fa jóg yent yi mooy al duhóolu al xaflatu at taalilu at tabon taalil bu la neexee tuddee ko al illatu bu firil la nag yent yooyu ak duhóolu ñi koy firee ngëlamte dañ cee jublu rekk xam dara ba noppi mu wëlbatiku réer la mër mër mel ne xamatoo ko woon mel ne mosoo koo xam daal loolu nag bu doon dal sunu boroom ñu wax ne kon du jëfe ci coobareem ndax kon mën naa xam mbir nam na koo defe nam ko xame xam-xam boobee réer ko mërul nga xam ne du ko mën a defe noona jomb na ci yàlla ndax day wane rek ak ñàkk coobare alxaflatu càggante jomb na ci yàlla moo di mu nar mbir ba noppi jekki-jekki bàyyi lam naroon téegul sax ne bàyyi na ko mu def moom loolu dana koy dal am lu mu namm jëm ci muy coobareem waaye nag deful loola leneen la def téegul ne sax bàyyi na loo mu njëkkoon a nar loo mu njëkkoon a jublu loolu nag jomm na ci yàlla yàlla moom du namm mbir ba noppi wëlbatiku bàyyi lam namoon ci lu dul mu yëg ne bàyyi na ko loolu moo tudd alxafalatu alxilatu moom mooy li nga xamee ne rek mooy sabab si su amee rek la cay juddoo daal di am fa saasa te luñ jekki di wax naa gannaaw bu sabab si amee muy xilla ji da nangam am di ab sart dolli ko ca mbaa bu fa nangam nekk kat ba tee koo am yu yëpp du ci am moom moom daal bu xella ji amee muy sabab si rek la cay juddoo daal di am mu jox la ci misaal day misaal alxillatu mu ne la mi ngi mel ne jaaro bi nekk ci baaraam bi saa yu baaraam bi yëngatoo rek faaw mu yëngalaale jaaro ba nga xam ne yëngatub jaaro ba mi ngi juddoo ci yëngatub baaraam bi mel ne su baaraam bi yëngatoo rek faaw jaaro bi yëngatu te doo wax ne gannaaw bu baaraam bi yëngatoo kat na fa nangam nekk mbaa bu fa nangam nekk jaaro bi door a yëngatu déedéet moom kay yëngatu baaraam bi rek mooy sabab si nga xam ne mooy tax jaaro bi yëngatu du amaat nag nga naa na fa nangam nekk boole ja mbaa bu fa nangam nekk boole ja alxil la nag amul jeexit yàlla rek mu ne moo koy def ci kaw coobareem waaye bu fekkoon ne da nga ne alxillatu sabab am na jeexit nga xam ne su sabab si amee rek loo juddoo ci sabab sa faaw mu am mel na nga ne yàlla moom bi mu xasee sàkk xëy la muy sabab si moom amatul coobare ci loo juddoo ca sabab si ndax bu xel la muy sabab si amee rek da cay juddoo daal di am du ca mën dara loolu wute naag pas-pasu gëm bu sell sell lépp rek ci coobare yàlla lay amee moo sàkk sabab waaye moo sàkk itam lay juddoo ca sabab sa te lu ci nekk ci coobaram rek lay amee ab tabax nag daa wuteeg alxilatu ab tabax mooy li nga xamee ne boo dee xool ci sa bët day mel ne jeexit sàngam ci moom lay bàyyi ko waaye nag moom da nga cay boole ne balaa jeexit joojee bàyyi ko ci moom kat nangam dafay nekk te nangam bañ faa nekk ni ki sawara boo dee xool day mel ne am na jeexitu lakk boo dee xool ci jeexit day mel ne sawara am na ak mën a lakk waaye nag sawara balaa mën a lakk da nga cay sartaale mu am lu mu lakk bu fekkee amul lu mu lakk du lakk nga doole ca itam dara bañ a dox digganteem ak lakk loolee ndax bu fekkee am na lu mu lakk waaye am na lu dox digganteem ak moom it du ko mën a lakk loolu mooy ab taboo ab taboo nag amul jeexit bu defee ne sawara bu xasee am lu mu lakk te dara doxul diggante nag moom faaw mu lakk ko mu neex yàlla ak mu bañ a neex yàlla déedéet yàlla moo sàkk sawara waaye moom yàlla ci boppam ba tey mooy lakk sawara du lakk ndax sawara mën naa am lu mu lakk ba noppi te gisuñu ci zaahir muy tee mu lakk loola te du ko lakk ni ki sunu maam ibrahim ba ñu taalee sawara ba nga xam ne picc yi naaw di ko tiim sax dañuy daanu dee gis nga ne dañ ko ci dugalee ci zaahir sawara am na lu mu lakk dara doxul diggante mu lakk ko te taxut mu lakk ko kon tegtal la ci ne yàlla moom moo sàkk jënn jëmm ju ne te itam moom rek mooy jeexital jëmm ja di jeexital daa tolloog nag jeexi ja day feeñe ci jëmm ja ndax boo soxlaa lu mel noona daal di wax wuti jëmm ja yàlla nag defal la loolee nga bëgg mu feeñe ca jëmm ja dañ ne woon yàlla ca melay mat ya amee na xam-xam boo xam ne umpaliwul dara lépp la xam te leen lu ne na mu doone la ko xamee mu ne kon nag li ñuy wax réer umpale dara jomb na ci moom lépp loo xam ne rek day wut ak réer sax mel ne sikki sàkka wala defe wala xalaat xalaat ku xamut moo koy def wala jortu wala fàtte wala seetantal ngir bëgg a xam yooyu yépp ak yu leen nuru jomb na ci sunu boroom dañoo waxoon ca melow mat ya ne yàlla amee na dégg ga yàlla ca moom ak gis ba yàlla ca moom ak wax ga yàlla ca moom kon kon nag yàlla meloo seeni safaan amee ak tëx wala ak ngumba wala ak luu jomb na ci moom ba muy tudd melow mat ya dafa waxam juróom-ñaari melow tudd almahaani te mooy al qudratu al iradatu al ilmu al xayaatu al samhu al basaru al kalaamu bi mu wax yi nga xam ne ñooy meloy jomb ci yàlla mu daldi wax safaani yooyu te moo di al xajisu al karaahatu al jahlu al mawtu al samamu al xamaa al bakkam mu ne nag ñu tàmbalee al xajisu al karaahatu ba ci albakam mu juróom yaar yooyu moom mën ngaa génne seeni maanawiya muy lu yomb yomb maanaam alxajusu mooy jëmmi lott gi jëmm ja ko làmboo mooy tudd alxajisu alkaraahatu bi ñuy firi ak sib te jublu ci ñu forcé ko ba mu jëf mbaa la am daal moom neexu ko du ci coobareem te wax alkaraahatu jëmm ja ko làmboo moo di alkaarihu aljahlu réer jëmm ja ko làmboo aljaahilu almawtu dee jëmm ja mu dal mbaa dana ko dal muy almayitu assama mu tëx jëmm ja ko amee tudd al asammu aji tax alxamaa ngumba jëmm ja ko làmboo di al ama albakam lu jëmm ja ko làmboo di al ab kamu kon nag bay wàññi ñaar fukki melo yi nga xam ne ñoo jomb ci yàlla tey safaanu ya nga waxoon ne ñooy meloy mag ñoo mënti ñàkk ci wàllu yàlla kon lii yaari juróom yaar la muy fukk ak ñeent nga boole ci nag juróom benn yi nga xam ne ñoo jiitu woon te mooy al adamu al xuduusu al fanaau al iftiqaaru at tamaatulu at taxaddudu muy ñaar fukki melo yi jomb ci sunu boroom subhanahu wa taala kon mu jàll ci li nga xam ne jaayis la ci wàllu yàlla kenn du ko waral ci moom kenn du ko jombal ci moom dañuy wax ne rek lépp ngi takku ci coobareem ak lépp ngi takku ci coobareem ak kàttanam lu ko ca soob mu def lu ko soobul mu bàyyi